waa jërëjëf euh, sëriñ euh, Fallou man la Cheikh Amar bu rajo université Cheikh Ahmadou Bamba bu sëriñ Mamoon Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada waaw information boobu nga xam ne ni euh, El moo ko bind ci page am lu dëgg ndax léegi la raccroché ak sëriñ Maam euh, jot na ma fi ñaari yoon téléphone moom sax mbir yi daf ko xaw a jaaxal tuuti waaye daal nee na sax nañu lijjanti ba xam moom source bi nga xam ne fa la jëlee loolu moom mu ngi sant yàlla dara jotu ko donc euh, nee na moom daal mu ngi sant daal di nekk ca la mu nekk rek xam nga sëñ Maam fan yi rek daanaka état bi affecté na ko lu mat quatre cent à cinq cent étudiants yoo xam ne nii ñu ngi ñëw mu leen di orienté entre Dakar. Euh, Ndaam ak euh, Bambey ci loolu la nekk d'ailleurs mu ngi tabax benn amphithéâtre fii à Ndaam boo xam ne presque lu mat euh, mille étudiants dinañ fa mën a jàng ci loolu la nekk donc bu xëyee bind ci Facebook di ko tàggee nee na loolu daal moom amu ci ay commentaires yu mu ci def li am solo mooy moom mu ngi sant yàlla bu wér a wér a wér di liggéey bi nga xam ne nii moom lay def mu jëm ci wàllu éducation. ak liggéeyal Serigne Touba kon donc loolu Elmo du bind ci page bi du information boo xam ne nii bu dëgg la Serigne Fallou kon ñu ngi sant ñëpp jërëjëf.